the oneness of Allah, the oneness of Allah. Oh, one who fast, stand up in prayer at night, and Allah will forgive. Allah will forgive. for the pleasure of Allah, the pleasure of Allah. asalaamaaleykum mbokk yi ñoo seetaan dellu waat nañ di leen nuyooti di leen sargal ci programme bi mu di Ramadan Mubarak muy programme boo xam ne nag nañ ciy dajale ay borom xam eh, ñoo xam ne nañuy waxtaanee li nga xam ne moo di njëriñu koor gi ak lépp loo xam ne rek war nañ koo xam ci biir weeri koor gi nga xam ne war nañu ko ci jëfee ah, comme ay jullit loolu nag moo tax tey ñu indi fi ki nga xam ne moom di Oustaz Tidiane Ka eh, ñu fas yéene waxtaanee nag tey ci programme bi eh, niñ ko aadawa di ko defee ci kanam tuuti dinañ ubbi téléphone yi bu ko defee yéen tamit lépp loo xam ne bëgg ngeen koo laajte eh, ci li ñoo waxtaanee ngeen mun koo laajte ñu tontu wante ko ak yéen bon nag laaj Tidiane Ka ñu ngi laa mm-hmm. sargal ci programme Ramadan Mubarak mm-hmm. Euh, fi mu nekk nag euh, ci biir weeru koor wi hmm. dañ toll ci jamono joo xam ne eh, moo di ñaareeli xaaj bi hmm. ndaxte yëg nañ ne weeru maanaam eh, ñetti fukki fan yi dañ ko xaaj ñetti xaaj hmm. xaaj bu njëkk bi eh, mooy yërmante yërmande mm-hmm. mm-hmm. ñaareeli xaaj bi mm-hmm. mooy jéggal bàkkaar ñetteel bi nag eh, ñu ne boobu nag moo daxati mooy far bàkkaar yépp eh, ñu dugg arjana musal ñu ci safara maanaam eh, loolu nag ma bëggoon a laajte rek ñaareeli xaaj bi ñu dugga nii moom lan la tekki lan lañ ci war a def mbokk yi ñooy seetaan dañuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu soxna Ayda ni ko waxee ñi ngi ndekk njëkk a ndokkeel suñ bopp di ndokkeel mboolem jullit ci weer bu màgg bi di weeri koor yàlla indil ñu ko def ko weer bu màgg muy weeru jaamukaay yàlla e, muy weer boo xam ne ci la wàcc alquranul karim muy weer boo xam ne ni nga ko waxee li nga wax noonu xadis la yonentu sallallahu alayhi moo wax ne awaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa axiruhu itqun min annaar weer la boo xam ne mu ne commencement bi yërmande la e, digg bi jéggal bàkkaar la mujj gi gore ci safara la e, loolu yëpp li muy tekki mooy ne njëriñi weeri koor mu ngi mel ni jullit munta xam yëpp sax dafa njëkk a nekk xiiwal bu mag yàlla indi weeri koor def ko jaamukaay yàlla bi ko indee mu wax ne soo gisee ma def ko itam dina tax nit ki ragal yàlla hmm. yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaquun yéen ñi gëm yàlla eh, farataal nañ ci yéen oor niñ ko farataalee woon ci ñi leen jiitu ndax ngeen ragal yàlla kon mu ngi mel ni yàlla wax nañu benn njëriñ ci li tax weere koor ñëw donte nga xam ne jaam bi jaamu yàlla bi ko yàlla teg warta xaar sax bi xam njëriñam wala xikma bi lan la mu tax mu soog koo def déedéet hmm. yàlla dafa wax ak ñun ci beneen place ci alquranul karim mu ne yónnent yi ak ñi nga xam ne gëm nañ li nekk seen digganteeg yàlla mooy ne sami'na wa ata'na yàlla dégg nañ li nga wax topp nañ ko duñ ko laaj lu tax moo tax toujours dañuy wax ne ñun waa rek dañuy wax ne diine su la sante amut ngay wax ne waaye. waaw wala lu tax ma war koo def. waaye ragal yàlla boobu nag e, yàlla ne e, moo tax mu santaane or ci biir loolu nag e, wax nañ ne ni mu waxee ne sant nañ leen ko yéen jullit ñi niñ ko sante woon ñi nekk ci kanam ñi leen jiitu woon kon or mu ngi fi woon waaye weeri koor bi mu ñëwee nag ummatu muhammadin sallallahu alayhi am na lu leen ci yàlla jagleel yonent bi sallallahu alayhi mu ne jox nañ suma xeet ci weeri koor loo xam ne joxuñ ko woon xeet yi leen jiitu benn bi ci njëkk mu ne xeeti gémmeñi oorkat ni muy naqaree nit waaye yàlla moom ci moom loo moo gën a neex ci moom lis koloñ bi dàqal doomu aadama ci kaw suuf ñaareel bi mu ne jullit bi su nekkee ci weeri koor malaaka yi ñu ngi koy jéggalul yàlla ba ba muy dogee mu ngi mel ni biir weeru koor yëpp kon léegi loolu ñëw na dëppoog euh, liy wax ci ñaareeli fukki fan bi nga xam ne jéggal bàkkaar la te malaaka kenn amul werante ne ñaanam yàlla daf koy nangu kon su malaaka di jéggalul oorkat yàlla dina nangu jéggal boobu beneen bi mu ne beneen ngëneel bi mooy ne bër bu set yàlla dina defaraat ajjana xam nga ñu ngi wax ne léegi fukki fan bu mu bi gore ci safara la ki gore ci safara ajjana la jëm bés bu nekk yàlla dina taaralaat àjjana su fekkoon ne ñun doomu aadama la dañoo wax ne bés bu nekk dina fobeere néegam dina ko fomp setal ko defaraat siis yi defaraat lu nekk di ko wax ne suma jaam yu baax yi léegi ñu génn ci coono ñoo dëkk ci yow loolu bokk na ci ngeen li nga xam ne yàlla jox na ko xeeti muhammad sallallahu alayhi wa sallam beneen bi mooy eh, su fekkee ne dem nañ ba nga xam ne weeri koor jeex na guddi gu mujj ga dina leen jéggal seen bàkkaar ñu ne ko waaw xanaa loolu leelatul qadar la mu ne déedéet ndax liggéeykat balaañ koo fay mu pare liggéeyam hmm. juróomeel bi mooy ne dinañ ubbi bunti àjjana yépp ci weeri koor tëj bunti safara yépp kon léegi li nga wax e, fukkeel bi ci digg bi hmm. yërmande la bu mujj bi goro ci safara la hmm. kon léegi e, waaye fukkeel bi nag bi nga xam ne moom am na jëf yuñ mën a ràññeel ak yeneen jëf yeneen fukk yi loolu ci fukk bu mujj bi rek la am mooy li ñuy wax li atikaaf loolu àggaguñ ci nag mm-hmm. waaye laaj bi moo tax ñu di ko leeral mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam fukki fan yi mujjee ci weeri koor su jotaan dina yokk jaamu yàllaam moo tax Aïcha radiallahu anha ci beneen xadis boo xam ne Buxaari nettali na ko ak muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na góor góorlu ci fukki fan yu mujj ci weeri koor lu ëpp li muy góorlu ci yeneen fan yi dul fukki fan yu mujj yi beneen xadis bi nga xam ne imaam ahmad moo ko solo mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam su fukki fan yu mujj yi jotaan ci weeri koor mu og loxo mbubbam takk ndiggam dundal guddeem ee njobootam mu mel ni njoboot gi itam mu éene leen Eh, tiyaaba ji nga xam ne mooy am ci fukki fan yooyu maanaam du nelaw guddi gi daal njaboot gi duñ nelaw jaamu yàlla lay nekk dina suñ nelawee dina leen bàyyi ñu nelaw ba nga xam ne léegi ku leen ee eh, sedd na dinañ jaamu yàlla ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaamu yàlla itam eh, dafa nekk lislaam yëpp lu digga doomu la li olof di wax digga doomu mooy loo xam ne mm-hmm. du manki waaye du ëpp ndax am na sahaabi boo xam ne dafa waxoon ne moom du nelaw guddi gu yëpp dafay jaamu yàlla bëccëg bi yëpp sa borom am na ci yow àq. sa bakkan bi am na ci yow àq. Mm-hmm. waaye sa njaboot am na ci yow àq. Mm-hmm. kon dina bàyyi eh, njabootam ñu nelew. Mm-hmm. suñ nelewee ba nga xam ne nag suñu eewoo dinañ mën a jóg julli mu ee leen ñu julli. Eh,